asalaamaaleykum mbokk yi nga xam yéen a safo samedi info SN 221 ak génn bi nga xam ne moom mi la di oustaz Modou Fall génnoon wax ak ci li nga xam ne moo di woote kii di Macky ak ndongo daara yi ginnaaw moom mi lay soxna si génn ci ay révélation yi nga xam ni doy na waar lool ak vidéo nga xam ni moom mën nañ ne oustaz Modou moom la def ginnaaw jee loolu taxaw déglu ko ak kàddu yi ni moom mi oustaz bi yëkkati na ko ci kaw li nga xam ni kat teg ko ci Macky Sall ak lii di diggante Ousmane Sonko mu nekk mbir yi nga xam ne doy na waar lool lool ci yile mbir dañuy taxaw déglu ko ñëwaat déglu leen lu mu ci wax yéen ñi jàng na yéen ñu mun a wax ndax kii li muy wax ci vidéo bi dëgg la wala lu bu dee dëgg la nag ah! <laughs> lii nag mooy tas ma ne ko lii mooy tas déglu leen bi. li ma bëgg jaaxal ci wax ci nag mooy lan moo tax Macky bu tëjoo ci biir néegam moom ak Marème Faye Sall ñu xalaat seenu mbir. wala moom a Farba Ngom ñu xalaat seen mbir ba programme seen i programme Ousmane Sonko mën a toog fa mu toog moom xam ko ba def déclaration wax ne Macky Sall mi ngi waajal nangam ñun Macky Sall ñun sëriñ daara yi wala ñun doomu daara yi Macky Sall dugg ci suñu domaine ba am lu siy def ñun ñu bëgg a doon ay ay ay ay nilaar a doon ay nit ñu xam dara bu fee nekk di dox si dinañ ko wuy ji ak duñ ko wuy ji ku ko wuy ji war nga alxuraan ku xam nga dama gisal dofu doflu Farba Ngom mi koy doxal ci wàllu musique dofu ma Marème Faye Sall mi koy dugal diggante ak ñiy dox wàllu dofu doflu leen bu baax lépp ma Macky Sall joxe Macky Sall dafa wax ne nañ ko andi juróom-ñaar fukki sëriñ daara juróom-ñaar fukki sëriñ daara bu ngeen seetee lim bi euh, kun lay tax mu ne nañ ko andi euh, ñaar fukki dongo daara ci euh, dëkk bu nekk dëkk région bu nekk nañ fa jël sëriñ daara ak ñaar fukki ndongo daara ñaar fukki ndongo daara yooyu mooy taxawee limu wadoodu léegi boo seetee wadoodu nga boole ko ak euh, un dalay daal di jox limu muur muy quatre-vingt-dix nga xam ne ko Macky Sall loolu fi mu ne nii di wax ci bari bari boo ko tarboo boo ko tarboo waxaabu mooy quatorze régions yi boo ko tarboo limu xam waxaabu mooy euh, quatre-vingt-dix yooyu daf lay jox mille cent mille deux cent soixante mille deux cent soixante am na tur bu muy bu muy mu jàpp directement ci turu suñu borom subhanahu wa taala yi mooy euh, wadoodu ba doon wadoodul xaadi ba doon wadoodul xaadi lay lay lay daal di jàppe loolu fi mu ne nii boo ko darboo rek ba tey jii vingt et un lim jum lay jox dafay doon lim bu doy waar da boo ko darboo tey vingt et un da lay mille deux cent nga xam ne kon ñun ñi yëngu ci yéen ñi yëngu ci wàllu las yéen yéen yéen yéen sëriñ daara yi nga xam ne xam ngeen dara ci wàllu lasaraan yi xam dara ci wàllu bind xam ngeen lim rek dèjà Macky Sall bu ko jëloon ci wàllu ndox dong ndox mu set rek mu jox ko ñee daje ca mbooloo mooma kenn ku ne ñibbiwaat ca région ni ñibbiwoon Macky Sall bu doon laajtiwaat troisième mandat quatrième mandat cinquième ne kenn naan na ko fa ba noppi jóg ñibbiwaat ca région ba région boobu kenn duyu yooyu yëpp ngeen war see ngeen war see bàyyi xel jéem ngeen a bàyyi xel ci la Macky Sall ci limam bii yoon dinañ ko wuy ji ak ñu ko wuy ji loolu jàpp naa ne gàtt xel boobu bu bu day boo xam ne dal na ñu ñu wax daal fi mu ne lim yi mu joxe dafa doon lim yu doy waar muy 70 90 ak euh, vingt yi boo ko benn boo si dara li mu wax dafa am lu mu lay jox loo xam ne moom la oustaz ginnaaw kàddu yi nga lay révélé waat bu baax baax ak di ko fàttali ko li nga xam moo di nit ñi ak li nga xam ne kat jamono gi toll waaye bi nga xam ne ñii di sëriñu daara yi war nañu am benn complicité bu mat sëkk ak benn déggoo bi nga xam ne dina dox seen diggante bu baax a baax ba kenn du am am benn fi ngay jaare pour di leen jiima bëtt mu nekk mbir yi nga xam ne kat doy na waar ci jamono gi ñu toll nii nag kat dañuy gis ni ak Sénégal gi ñu toll nii dañuy nekk ak benn sëriñu daara ay torsion yi nga xam ne kat dañuy bu leen bëgg utiliser utiliser suñu paree ci utiliser leen sànniwaat leen wooyu leen di abonné fi nga xam ne info sn 229 ndax li fi xibaar ñu nekk nii asalaamaaleykum wa rahmatullah taala